à monsieur le ministre de l'Intérieur. Alors, je vous remercie, monsieur le ministre. Euh, monsieur le ministre, chers collègues, mesdames, messieurs, Il y a eu donc euh, des questions qui sont revenues de façon récurrente par thématique. La première d'entre elles a concerné sans nul doute le couvre-feu et principalement les premières heures qui ont suivi tout de suite son entrée en vigueur. Alors sur ce plan, je voudrais rappeler que cette décision qui a été prise d'installer, ou en tout cas de décréter de la part de son Excellence Monsieur le Président de la République l'état d'urgence assorti du couvre-feu, est une décision prise sur recommandation du Comité national de gestion des épidémies. Et sur cette base, elle vise la protection avant tout des populations. Et c'est le lieu d'ailleurs de noter, parce que moi-même j'étais sur le terrain hier avec certains de vos confrères, c'est le lieu de noter que les Sénégalais dans les régions de Dakar et de Thiès ont observé la mesure. Il y a eu quelques manifestations qui ont eu lieu, mais euh, après quelques interventions, l'ordre a été rétabli mais pour l'essentiel, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il n'y a pas eu de difficulté par rapport à l'application ou à l'entrée en vigueur de cette mesure de couvre-feu. Ça, c'était ce que je voudrais relever d'abord. Ensuite, et concernant euh, les questions euh, sur euh, ce qui va être euh, faits ou entrepris, nous sommes dans le cadre euh, du fonctionnement que nous connaissons tous. Il y a un dispositif qui est en place et ce dispositif est un dispositif avant tout qui sert à servir les populations. C'est un dispositif de protection et qui est au service des populations. Alors à partir de ce moment et au regard de ce qu'on a noté dans le cadre de l'observation de cette mesure, euh, il est certain qu'il ne se pose aucune difficulté par rapport à l'entrée en vigueur et par rapport à la mise en œuvre effective des mesures qui ont été entreprises. Euh, il y a eu des questions également relatives à l'organisation pratique de ce qui doit être fait pour permettre à certaines catégories socio-professionnelles d'exercer leur travail. De tout le temps, même lors des précédentes éditions, il n'y a jamais eu de difficultés. Et ce sera l'occasion, certainement vous devez pour l'essentiel en être informé. Moi-même, j'ai eu des séances de travail avec l'essentiel de vos représentants et c'était pour voir en toute responsabilité comment, de façon coordonnée, mettre en œuvre la décision de vous permettre, mais aussi de permettre à d'autres catégories euh, d'exercer leur travail, mais cela ne veut pas dire pour autant que les mesures ne seront pas respectées. Et encore une fois, l'objectif à travers cette décision était avant tout d'endiguer la prorogation du virus. Maintenant, il peut y avoir toujours dans la mise en œuvre quelques exceptions qui sont prévues d'ailleurs euh, par les textes, mais de ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a des dispositifs antérieurs qui ont permis, euh, avec l'expérience, d'évaluer, d'améliorer, mais toujours dans le but de mieux faire. C'est ce qu'il faut retenir pour l'essentiel. Euh, alors monsieur le ministre euh, l'a précisé tout à l'heure le thème de cette rencontre et c'est ce qui a été proposé de tout le temps euh, aux journalistes c'est quand même d'échanger et de discuter euh, sur les sujets de l'heure. Et on aura l'occasion, avec d'autres rencontres, d'aborder sans nul doute des questions qui ont été posées et qui intéressent d'autres thèmes. Je pense que pour l'essentiel, euh, parce que quand je passe à revue les différentes questions, ça tourne autour du bilan de la nuit d'hier et des mesures qui doivent être prises sur la question. Euh, pour les rassemblements, euh, il y a des arrêtés. Je dois aussi l'annoncer, il y a un des journalistes qui a posé la question. Il a voulu savoir si, en dehors du couvre-feu, il y a d'autres actes qui seront pris. Il est clair que déjà dans le propos introductif, ça a été précisé. Dans le propos introductif, il a été bien précisé qu'il y a d'autres actes euh, qui doivent être pris. Et ces actes concernent le port obligatoire du masque, concernent les réunions euh, ou rassemblements qui doivent faire l'objet d'interdiction, ainsi que d'ailleurs certains défilés ou cortèges tels que c'est prévu par les textes. Donc il faut retenir pour l'essentiel qu'en dehors du couvre-feu, il y a également des mesures destinées à endiguer la prorogation du virus. Mais nous ne prenons pas des mesures sur la base simplement de ce que nous pensons être Euh, euh, disons, la meilleure des décisions, sans pour autant la fonder sur les avis de sachants. Monsieur le ministre l'a rappelé tout à l'heure, c'est à la suite d'une très longue réunion avec les échanges de personnes habilitées à donner des avis sur les questions relatives à la maladie que de telles décisions ont été prises. Tout ce qui est donc pris ou envisagé l'est en concertation avec les personnels de santé qui connaissent euh, mieux que quiconque ces aspects. Je pense, Monsieur le ministre, euh, avoir répondu, mais en regroupant par thème concernant les manifestations et le rassemblement et autres réunions aux différentes questions qui ont été posées. Je vous Je vous remercie, Monsieur le ministre. Je donne la parole à Monsieur le ministre de la Santé et de l'Action sociale, Abdoulaye Diouf Sarr. Pardon? alors euh, ma maa ngi leen di euh, sant monsieur le ministre maa ngi lay sant di sant collègues yi ñu nekkandool ci table bi di sant journaliste yi si seen teewaay euh, su ma regroupé question yi nga xamante ni euh, jot nañ ko fi laaj li ci gën a soxal euh, ñi nga xamante ni ñoom ñoo doon laaj dafa jëm ci wàllu couvre-feu bi waaye jëm ci wàllu rassemblement ak réunion yi ñetteelu ponk bi mooy jëm ci naka la yenn nit yi rawatina yenn liggéeykat yi rawatina journalistes yi naka lañuy ñuy mën a defee seen liggéey euh, ci période bi su dee dañuy tontu ci wàllu li ngeen tuddee euh, ni nañ leen defal bilan ci li xew démb damay fàttali ni mesure bi nga xamante ni moom mooy état d'urgence euh, ànd ak couvre-feu mesure la boo xamante ni bi ko président de la république di jël dafa woote ndaje boo xamante ni waxtaan moo ko laloon jëmale ci ñu jox ko xalaat ci lan moo gën ci taxawaay fii nga xamante ni feebar bi toll na fi bi mu dégloo ñi nga xamante ni ay waa kër docteur lañ seen xel màcc jëmale jëm ci wàll woowu mu déglu ñëpp bi mu ci noppee mu ni konkat li ñi nga xamante ni moom lañ ma xelal ni fi la feebar bi toll ngir aar population yi nga xamante ni ñoo nekk suñu réew jot na nag ñu jël beneen décision décision boobu moo indi euh, état d'urgence bi ak couvre-feu mais bi ñu jëlee décision bi ba noppi waxoon na te léegi ministre bi Omar Gueye fàttali na ko am na yeneen mesure yu ci war a topp ci képp koo xamante ni euh, jëwrin nga ci gouvernement bi te am wàll woo ci war a dox mu sant la ni na nga ci am taxawaay ngir li ma annoncé ci protection population bi ngeen jëmmal ko ak yeneen mesure ci wàll woowu am na mesure yoo xamante ni ñun mooy ci suñu wàll lu jëm ci wàllu réunion yi wàllu rassemblement yi wàllu port obligatoire de masque yi loolu suñu wàll la ba tax na euh, am na ay acte yu ñu ci jël ngir lu mën a fexe ba feebar bi lépp lu koy arrêté ak lépp loo xamante ni day tax du law ñu euh, jël acte yi ngir mu euh, servir mu mu mu euh, atteindre objectif boobu donc loolu laa bëgg tontu ci wàllu rassemblement yi ak réunion yi leneen li jëm ci pour ñëwaat si wàllu bilan bi mu doon première question bi démb dem nañ ci terrain bi am na yenn ci seen nattango yoo xamante ni sax daje nañ ak ñoom ci terrain bi ñuy def seen liggéey ci guddi gi waaye li ñu seetlu te di ko rafetlu mooy bi ñu génnee jaar nañ ci ay koñ ak mbedd yu bari yoo xamante ni amul kenn ku nekk ci biti ñu nekk seen ay biir kër am na nag ay quelques euh, koñ yoo xam ni bi ñu fa demee gisoon nañ ñu génn foofu waaye liggéey bi nga xamante ni euh, force de défense yi ak sécurité waroon nañ ko def def nañ ko pour rétablir ordre mais loo xamante ni la du lu ñu gis lu jéggi dayoo wala loo xamante ni am na benn euh, kii bi ñuy wax mais ci li ñu gën a seetlu gën ko gis te looloo yaakaar naa seen maire seede yi nga xamante ni moom lañ ci am mooy seen nattango yi nga xamante ni ñu ngi woon ci terrain bi pour l'essentiel fi ñu jaar yépp daje fa ak seen nattango yi euh, population yi te ñuy rafetlu loolu comprendre nañ ni mesure bi c'est avant tout une mesure qui vise à protéger les populations li ci topp nag liggéey la boo xamante ni tamit liggéeyu état la mais souhait bi mooy toujours que nit yëpp respecté li nga xamante ni njariñu ñëpp la di njariñu askan bi alors euh, ñetteel bi mooy li jëm ci wàllu liggéey bi waxoon naa ko léegi euh, donc euh, duma ma si delluwaat nañ ko daan defee noonu lañ koy defee waat du caagin dañuy wax ni mesures yi kenn du ko respecté mais lépp loo xamante ni yenn catégorie socio professionnel yi Euh, aju na ci quelque dérogations yu ñu si mën a joxe ci yenn euh, façon bu ñuy liggéeyee amul benn problème d'ailleurs la preuve yenn seen nattango yi ak ñenn ñi nga xam ne ñoo leen représenté yéen man am na ñoom démb benn réunion bu yaatu boo xam ne waxtaan nañ ci te tey tamit war naa dajewaat ak ñoom ngir waxtaan donc c'est d'abord avant tout ubbeeku mais ubbeeku boo xamante ni déglu ñëpp xam li nga xamante ni mooy préoccupation yu nit yi euh, waxtaan ak ñoom ci li nga xamante ni moom lañ mën a ànd def ko ngir njariñu askan bi mais am na foo xamante ni tamit état rôle am la dafa war a décider bu décider jotee aussi ñu décider loolu laa amoon si tontu maa